soo gars yi géej bi neex na quoi sama gars yi dem toog gis naa ni juri rab quoi juri dina ko follow ah juri rab dina ko follow mi ngi Instagram quoi juri rab am jox ma benn freestyle lu hmm, Ara ak Deyza gars yi ñu seen oto ah Deyza dóor couple Deyza na moo dóor couple quoi Ara di mbala xaw ma moom day mbala moom mbala kat la mi ngi naan euh, siis ne euh, rab bi da ko bëgg quoi siis ne Mor Lam maanaam moom Deyza baa jëkkoon dafa siis moom nangu leen siis Deyza def

ñu ne saa waay génnaat nga dib moo fi génnaat nag récemment nag dib moo génnaat na jaxase yow bon quoi na génnaat nga ah mais ba léegi flow bi flow bi même la ah jël Adja ki lañ yi na ñoom jël euh, jël Adja fël dëpp ne aji na moto non dèjà de <laughs> saa ba léegi ma affaire dafa jël Adja dëpp fël fël di aji na moto ah ba léegi noonu clash quoi clash nee nañ son bi mi ngi ñëw coming soon mi ngi ñëw quoi mais kon dama damay confirmer mooy loolu quoi xaw ma nag ndax gars yi li baar yi dib sànni parce que ñu bëree neen dib yi baar baar yi mu sànni alors bàyyi na booy nee na ba baar yi mu sànni seen fil mooy maanaam jël Adama ak Awa wàcce leen ci suuf ni pomb ñu yëy gars yi nañ loolu axlu birig moo xam moom ah man maa jëkk génn bi son kii bi génne euh, son mooy teaser bi man pas du sax mooy son musiba bi mooy bi ko di balancé mu naan fuck number one fuck number two parce que boobu noonu maa jëkk génn ni dib axlu birig lay waxal gars yi na ma déedéet wax la en parce que boobu dama leen dama leen réfléchir la même wax leen circonstances yi. parce que boobu noonu en dañoo def live ak Pape Sidi Fall ñu ne gars yi mooy number one ñu ne ñoom fekk vingt ans dix ans la ñu wax kan mooy number one mais fu ne nii mënuñu wax kan mooy number one parce que c' trop tôt pour le dire. ma ne baar boobu noonu Lombric moo xam moom fag number one fag number two parce que dim ne il s'en fiche de ay number one number two yaa ngi li may gaañ maytul may a juum si fi am sama ñaanu yaay lu mel Ndakaaru mën naa jénga mais du daanu waaye akamaa ay si gars yi di bàyyiwul kenn lépp lépp la waxal mais ahlu brick ñoom ñoom tontu nañ ñoom ahlu brick son boobu ñu dóor moom tontu nañ nee ba léegi jomme ñu ba léegi génnaan nga di jéem a changé flow mais léegi ba léegi dip changé lu flow même flow bi la ñu yor iPhone bi <laughs> mais sama gars yi boobu benn contribution laa ci def benn contribution laa ci def man man je suis pas d' accord ak ñu ne Dip benn flow la yor am na à disagree à disagree parce que Dip amul biit bu mu sañewul amul biit bu mu sañewul boo jëlee bët nu mu ko rabee bokkul nga jël xale bu ndaw mook Samba Peuzé

la guerre ahlu brique peut-être bi musiba bi ku si am nga loo jël musiba bi ku nekk ak li si jël peut-être ñoom fag na nga nëmba tuu bi wàcc naa leen ni ñaa wàcc naa ñoom loolu lañ ci moom ñaata rappeur yu dégg olof ñaata rappeur yu dégg olof ma fay leen ni ma fay ñaata euh, ñaata rappeur laa fay si ku dégg olof parce que foofu noonu bon <laughs> jàmmiru di ba fay yaa dégg li ma lay wax euh, di ba fay muy jëm a xakil du ma ne dib ko fay mais bon dib moo leen dib moo nekk benn ombre quoi bu leen gêné Hakim da ko dib da ko gêné ci pël bi quoi ak tant de rappeur ah, waaw yoo xam ne tey jii maanaam dib moo leen moo leen fay donc baar boobu noonu ñoom peut être ko parce que musique boobu ku nekk baar bi nga ciy jël ah ku nekk baar bi nga ciy jël yaay xool peut être euh, Akhlou Brick ñoom jël nañ seen i baar tontu rappeurs yi ñu fay ay Canabasse si la bokk dama koy fàtte Canabasse tamit buzz la ko waa ko bis dib moo ko fay il a fait tant de malheur le gars le boy Diago la moo moo ko fay ba pare ñu ànd si euh, musiba bi mu ne ah du ma tuub parce que benn boo muy wax di mu loolu yëpp su may wax mooy loolu Malathion la mbir mi tàngee ékay du ma xaar ma sa rappeur juri rab bi gëpp moom a tagg affaire yi comme looy kii rek ma Instagram man moom xoolal waaw lu gars na boy mais mooy loolu moom quoi juri raam juri raam bëggal jàmm juri dama wax français ah, staff allo big ne moom moo ko jox de waaw moo ma tàggee de moo ma tàggee man de ma jox ma tàgg man man ma la coow waaw waaw kérosène laa de su ma tàggee du ma fay de loolu leen ko sama kanam bu ñaaw génn ma la coow et sama gars maa ngi gis euh, euh, support bi gars yi ñu ngi wax naan gars yi ñu ngi wax naan euh, Euh, gars yi ñu ngi wax naan euh, Dip mooy yokk suma suma abonné yi je le reconnais Dip boo defee mu vidéo day jaar ngaa ko blende d'accord fekkee buñu bu jë bu ñu yoree bigitu mbagg kay bu fekkee bu ma affaire boutique bi gën a a ah, ah, damay wax ci bu dee Dip may damay wax ci ay Dip parce que kuy wax ku la dégg nga bëgg kuy gëna tali ko la sétane nga bëgg dégg rap rappeur yi ndaw yi ak yeneen rappeur yi fi ne di sonal nit ñi ah naan ak yeneen fan ci naan di bëgg ngaaka rek ngay wax si di bëgg ngaaka lay wax bo démé bu sport Barcelone ak Real lañu def grand format kenn du jël Osasuna xetafé wala Burnley wala wala ki Derby County di ko def grand format rappeur bu ci def rappeur bu ndaw bu ci xaw def kit nak ma ma ma ma ma la quoi dina am sax ma la na boy mi ngi ñëw mais nak grand format bi daa am ko mom grand format bi daa ko mom fu ne di bëgg ngaaka ño fi né di bëgg ngaaka ño fi né tu vois nit dof Akhlou Brick ñëw Issa Fil one lirikal ñëw Elzo xaw na kii Elzo umzo Dara dañu xaw a lëw ak Buzz Lab dañu xaw a lëw Issa Fil euh, booy nekk fële euh, di toj fu ne ay relation Mr Cash le 29 wuy sama drill Umzo on the maafe use behind the camera le 29 donc sama neen suba lay ne Boy, bi mi ngi def lu am solo taal bi mi ngi ñëw yaa dégg ma lay wax Samba Peuzzi mi ngi ñëw dina am seen donc man kenn soxla lépp après naa def classement rab bi de wax ñi football UEFA ñi dem relégable ak ñi wàcc donc sama gars yi ma jàmm de maa di bëgg ba mu neex ma bu dee may fi c'est de bonne guerre sama gars yi du leen ko songal bu ñaaw génn